leen gën a jëm kanam ndax kenn ku ci ne li ngeen am ci seen bopp jox ngeen ma ko lu des ci man la sama diggante yéen li lépp defal wallaay wallaay maa ba si mhm. maa ngi koy seeral kullale la xam ne seq naa ko Mbàkke ndax jot andiwu leen Mbàkke waaye damaa bir ni ñi fi teew. Mhm. fépp fuñ dem. Mhm. lañ fay yëkkati. Mhm. ku bëgg a jariñ. wallaay boo ci. wallaay rek moo doon kàddu yi. wallaay Mbacke ma jox si Aliou fii yàgg nañ fi ñëw yàgg fi tase ak borom loolu li muy tekki rek. mooy ku xam-xam itteel la loolu li muy tekki mooy bërëb bi bërëbu xam-xam la bërëbu xam-xam nag ku fa wuutu mag ñi di fa taxawal lu mel nii yow xam nga li nga yor lan la ndax fii yàgg nañ fi ñëw di fi fekk Baye Cheikh Khady waaye lépp luñ ko fi daan fekkee suñ fi ñëwee di fekk sëñ Abdou Mbacke mii dafa yokk dara wàññeekuwul comme ni mu ko waxee nag kilifa yi fi ñëw di ay borom yi xam-xam nga xam ne xam-xam war naa tax ñu fonk leen waaye seen melokaan war naa tax ñu fonk leen jataay bi dafay wone rek Cheikh Abdou ni mu mel ak ni mu yaatoo ndax ku yaatu mooy yaatal te lii mu def yaatal la tabaarakallaahu jox boroom xam-xam yi kàddu loolu dafa jot ci réew mu mel ne senegal ndax réew moo xam ne ñi ëpp ci ñuy wax xamuñu boroom xam-xam yi dañ leen a war a jox kàddu te seen kàddu ñu jéem koo dégg te jëfe ko ndax xam-xam moo mën a jubbanti nit xam-xam mooy defar nit xam mooy defar am réew lépp loo xam ne cosaan la du xam-xam mën naa dem ba mel neneen nu bokkut ak nañ ko bëggee tabaarakallaahu kon sëñ Abdou lii muy def yàgg na koo def ñii mu jaxasool ñoom la war a jaxasool ndax nit ku baax dafa mel ne li lay gën a bëgg mooy nit ñu baax ñi tabaarakallaahu te soo ko fekkee fii ci jataayam bi jataay bi bés bu nekk day gën a jekk te boroom xam-xam yi teew dañuy taaral jataay dañ koy taaral tabaarakallaahu jataay bu nekk ak lay taar ba waaye fii kër Baye Cheikh Khady gi penc mi xam-xam mooy taar bi tabaarakallaahu ndax xam-xam lañ fi yaakaar xam-xam lañ fi fekk waaye barke bi nga xam ne moom lañ fi wut si sax ku amul xam-xam pour nga jot ci dafay jafe ndax ku amul xam-xam danga dul xam defin ku amul xam-xam doo xam wutin ku amul xam-xam doo mën a jariñoo li nga am tabaarakallaahu kon ñu ngi sant oustaz Dame Ndiaye bu baax te di ko ziara di ko ndokkeel ci bis bi ak ñi mu ko bokkal ñëpp oustaz Mbacke Sylla tabaarakallaahu ñun kàddu seede yooyu rek lañuy wax waaye lépp loo xam ne ak cant la sëriñ Abdou waxal na ko boppam te moo gën a matale tabaarakallaahu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa baax na kon ñu yeewi sëñ Abdou mu dellu ci gan ñi ñu wéyal waxtaan wi ñaan rek ñu déglu bu baax bañ a aji wax ji ndax ñu bët di wax eh, di fattoo noonu la ay wax itam di fattoo ci tomb bu am solo bi nga xam ne docteur Ismaïl tàmbali woon na ko introduire léegi jëm ci tànniinu njiit nan la ko lislaam gisee ci Sénégal ñu daal fas yéene ànd ak teewlu kon déglu ki nga xamante ne mooy docteur Ismaïl mu wéyal waxtaan bi incha allah. kon di waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ko Mbacké annoncé léegi muy tomb bi nga xamante ni moom laa war a lay taayal te ñi ma seq ñëpp di samay sëriñ ñoo xamante ni jàngee naa ci ñoom kon muy mbégte ci man ma toog ñu seq ma parce que sécurité la ci man amul risque ndax lu dëng ñu jubbanti tomb bi ñuy waxtaanee mooy lislaam nan la saytoo nu ñuy tànnee njiit suñ nee njiit nag kilifa leader chef yàlla mooy kilifa gu mag yàlla mooy lotorité suprême yàlla bind ay àddunaam ay monde ay univers ci xikmaam mu def univers yooyu samp ci ay système yoo xamante ni dafay soxla njiit du nit kese nag moo soxla ñépp soxla ci malaaka yi nga ba ci rab yi ci rab yi yàlla mi ngi naan wa ma min dabbatin fi ard wala tairin yatiiru bi janaahayhi illa umamun amsaalukum kon même picc yi même njanaaw yi même rab yi même gunóor yi ay nation lañ te dañu organisé wu te xam nañu ni rab yi saa yu ñu dajaloo ci mbooloo dañu am kilifa boo xamante ni mooy orienté mooy guidé moom la ñuy topp kon yàlla moo tërale noonu ne mbooloo day am kilifa mbooloo day am njiit yàlla nag ginnaaw moom lépp lu ñu sant daf ñuy dimbali jox ñu ay yu ñu ko mën a defee moo tax mu jox ñu ay législation ay code mooy téere yi mu wàccee bi ci mujj di alquran saa yi ñu joxee ay législation daf ñuy jox ay moniteur mooy yonent yi alayhimu salaam yonent yi ñëw def formation bi mais nekk version pratique bu théorie bi nga xam ne ci ñoom la ñuy xool njiit nan la war a doxale ci ñoom lañuy xool pour xam njiit nan lañ ko war a tànne loolu ma yàlla la moo tax ci lislaam même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ni bu ngeen di tukki bu ngeen nekkee ñett rek na ngeen désigné kenn na ngeen nommé kenn mu nekk chef groupe bi ndax kilifteef moom mënta ñàkk ci dund mbooloo moo tax question wu leadership dafa teel a posé yàlla bi mu commencé bind nit rek la enjeu wu leadership posé wu première compétition électorale commencé diggante malaaka yi ci benn wàll bi ak aadama ci beneen wàll bi compétition war a nekk kan moo war a nekk kilifa ci kaw suuf kan moo war a nekk chef ci kaw suuf buñ nee chef buñ nee kilifa rek foog am ay critères yu ñu tànn ci malaaka yi critères yi ñu war a tànn chef mooy dafa war a nekk ku mën a sàbbal yàlla mooy dafa war a nekk ku mën a sellal yàlla te du ko mooy ci aadama critère de choix yi moo doon xam-xam moo doon maandu ànd ak ndimbalu yàlla kon enjeu bi lu teel a la ci tomb yi ñu fas yéenee lay taayalee waxtaan bi mooy dinañ jéem a taxaw ci lu tax leadership am solo lu tax leader lu tax njiit enjeu bi lu tax enjeu bi am solo lan mooy responsabilité tànn njiit tànn njiit lan mooy conséquence yi tànn njiit bu baax wala tànn njiit bu bon daa tëjee ci kaawu Sénégal def benn étude de cas mooy principe yi ñuy dégager dañ koy wàccee ci ñun suñu situation wàccee ko ci situation bu Sénégal ak temps bi ñu tënk duñ mën a développer ci niñ ko nar a woon yëpp ba tax na ci lu tax njiit am enjeu benn tomb rek laa ciy jukki mooy yàlla moo bind nit mënta dund moom kese foog mu dund ci biir mbooloo foog mu dund ci biir groupe yàlla moo def nit bu demee demelee boppam moom kese mënul fajal boppam soxlaam yëpp donc fokk ñu àndandoo ci groupe ndax groupe bi ku nekk day am loo man waaye bu fekkente ni groupe bi tamit suñu àndee ku nekk yilif boppam pëccëxoo mooy am désordre mooy am moo tax kon groupe bi suñu dajaloo fokk ku nekk am lu mu may am ku ñu jël nekk am loo may ci sa bopp am sañ-sañ boo ko may ci sa bopp nangul ko ko su ko defee loolu mooy tax ordre am waaye tamit liggéeyu mbooloo ngir mu mën a am résultat maanaam mbooloo buñ jëmee fenn ngir ñu mën a am résultat fokk mu nekk fokk ñu am kilifa initiative individuelle nit mën na ko def mais bu fekkente ni dafay dafay dafay concerner mbooloo bi dafay nekk initiative collective su boobaa fokk ñu am njiit ndax réussite mun a am sans njiit d'ailleurs loolu mooy rôle njiit njiit mooy dafa war a am capacité fexe ba boole doole mbooloo bi mu amee jël leen teg ci yoon bu leen di yóbbu fu leen jig loolu mooy rôle te rôle boobu ki koy def foog mu amaale ay qualité si kon loolu ñëpp munuñoo nekk di jàpp mbooloo mi ñëpp mënuñoo ko ñëpp mënuñoo sàmbandoo foog ñu jël kenn mu sàmm mooy responsable d'ailleurs sax yéen a sallallahu alayhi noonu la ko tuddee sàmm. léegi nag lan mooy responsabilité tànn parce que tànn responsabilité parce que kóolute la dépôt la témoignage la seede la moo tax borom subhanahu wa taala di wax ni sa tuktabu shahadatuhum parce que tànn waxtu bi ngay tànn xamal ni yaa ngi yaa ngi assumer te yàlla fu mu ñu sasee responsabilité nañ xam ne am nañu devoir rendre compte kon saa yooyu décider di tànn rek na waajal ndax buñ la laajee bu ëllëgee di nga ko mën a justifier moo tax Omar ibn Khattab ba muy faatu te créé benn collège boo xamante ni juróom benn saxaaba ñoo ko composé woon mu ne sama ginnaaw su ngeen di tànn kii jiite jullit yi na ko tànn ci juróom-benn yi mais mu xam ni tamit dinañ ko ko laaj waqifuhum innahum mas'uluun daf ni man bis bu ma ko yàlla laajee lu taxoon ma tànn juróom-benn yii ne na ngeen ci tànn kii jiite jullit yi sama ginnaaw man mën naa ko justifier mu ne bis bu ma ko yàlla laajee dinaa ko ni juróom-benn ñii ki nga yónni woon ci ñun bokkoon na ci ñi mu wóolu ci ñi ñu wóolu kon lu tax ñun duñ leen wóolu loolu mooy saa yooyu tànn préparé ni ëllëg di nga ko justifier ëllëg di ko layal waaye booy tànn parce que buñ ne da war a tànn rek mooy ki ngay tànn kon am na nu mu war a mel amoo sañ seen tànn nu la neexe critère bi njëkk bi ñuy tànnee njiit mooy jikko ku la gën gën laa jub ëpp la chance su réussir réaliser projet bi mu teg moo tax ki gën a réussir projet de société mooy ki gën ci nit ñi gën cee jub te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moom li mu réussir kenn réussir ko lu tax parce que moo gën ci ñëpp léegi nag ku la gën rek njiit gën la koo juble rek ëpp la chance su tegu ci yoonu ci yoonu yokkute mais jikko dañ ko évaluer nit ki dañ ko war a xam dañ ko war a mën a natt ci ko nit ki discours la ak parcours discours daanaka ñëpp a mën a wax lu rafet ñëpp a mën a digaluñ manut ñëpp a mën a mais wax ko mu rafet ci ci jamono biñ la koy wax xëy na mënoo ci dara donc wax ju rafet ñëpp ko man te ñuy wax ni nit melul ni mu wax mais ni mu jëfe la mel moo tax nit soo koy natt ci jikko da ngay xool parcours am jaar-jaaram même yonent bi sallallahu alayhi bi mu ñëwee di wax pour la première fois ni yàlla daf ko sas mission def ko yonent bi mu ñëwee laataa mu koy wax dafa décliné parcours am ba pare li mu leen nekk wax mooy est-ce que su leen waxoon ni am na benn armée bu nekk fii ci ginnaaw màkk di ñu waaj a song est-ce que di ngeen ma gëm ñu ko dañ lay gëm parce que mosoo wax lu dul dëgg parce que mosoo war mosoo dugg ci ay caaxaan bi ñu validé parcours bi mu doog leen a wax li ko tax a jóg Yusuf alayhi salaam biñ demee ba war koo nommer mais li ñu njëkk a lijjanti mooy parcours bi est-ce que ci parcours am nit ku ñu war a wóolu la est-ce que ci parcours am nit ku jub la ñu dellu ci démbam ñu gis histoire ak soxna Azizu Missa jigéen ju am pouvoir yilif la ñëw sàkku la sàkku boobu su fekkoonte ni xooloo ci keneen ku dul yàlla te bëggoon promotion rek da ngay parce que lu mu ci doon gañe rek la ci am mais Oustaz Dame Ndiaye day wax ni problème mu Youssouf mooy euh, ndaw si moom dafa rek la woon problème mooy kilifaam nekku fi te kilifaam du xam lu mu fekkewut mais Youssouf problème mooy kilifaam mu ngi fi léegi parcours boobu donc kon kii bañ lii parce que Youssou li ñuy jàngal foofu mooy parce que daf ni ndaw si man rus sa borom kër jël ma dugal ma ci paleem bi wóolu ma ni ma wóoloo aw ma fi sens interdit mu wóolu ma ci njabootam ma koy war ginnaaw qaala maadallah innahu rabbi ahsana maswa parce que gor kenn du ko tiraanga mu lay fay ak mbaagoo la <laughs> gor du tifli ci bu mu naan ñu gis ni kon gis nga parcours bi lañ ko nattee ñu xam ne kon kii jar naa dénk Youssouf dégagé ñaari principe yu ñuy tànnee njiit mooy bi mu décliné CVM dafa dégagé ñaari principe qaala ij'alnii ala xazaa'ini al ard inni xafidun alim principe bu jub la dégager xafiis ak principe bu compétence muy xam-xam kon parce que nit bu amul jikko nit bu amul jikko nit bu amul moral mënul def lu jëriñ nit ñëpp nit bu amul moral ni ma mënee defee ak mbaax noonu lay mën a defee ak mbon moo tax xool leen fi àdduna bi am na fi ay leader ay kilifa yu mag yoo xam ne defal nañ seen réew lu bari ci libéré ko ci ci ci teg ko ci yoonu yoonu suqaliku mais soo leen di xool ginnaaw moral du woon seen yitte ni ñu xere woon ci suqali seen réew noonu lañ xere woon ci ndooleel yeneeni réew ni ñu xere woon ci libéré seen peuple noonu lañ xere woon ci def yeneen peuple ay jàpp niñ xere woon ci seeni nit am koom noonu lañ xere woon ci sàcc ñeneen ngir indil ko seen bopp parce que jikko moo fa amul su amul jikko rek ni nga mën a baaxe noonu nga mën a bon kon jikko mooy li jiitu ci luñ war a xool ci njiit ba ca des njiit suñ koy tànn dañu war a xool ki ko gën a mag ki ko gën a man hmm. borom subhanahu wa taala sax principe boobu la appliqué mooy kilifa yi ñu tànnal yépp mooy ñi gën a mat ci ñun muy yonent yi alayhimu salaam mooy ñi gën ci ñun mooy yonent yi alayhimu salaam yàlla bi muy jox mu ne kilifa ñooñu lañ jox kon bu ñuy tànn dañoo war a tànn ki ko gën a mat ki ko gën a mat ndax amuñu sañ-sañu ñuy dénkaane benn mbir gis ni kii moo ko gën a man ñu bàyyi ko fi jël ku xamante ne nii moo ko gën a néew compétence loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yonent bi sallallahu wa sallam moo ni su ngeen tànnee njiit su ngeen tànnee kilifa ci biir mbooloo te am fa ku ko ko gën a mat ku def loolu war na yàlla ak yonentam ak jullit kon bu ñuy tànn dañoo war a fexe ba góor góorgóorlu ba tànn ki nga xamante ni jàpp nañu moo ko gën a mat moo gën a man tànn kii tànn dafa war a libre parce que responsabilité individuelle la moo taxit bu ëllëgee yowmal qiyaam suñuy rendre compte individuellement la ñuy rendre compte wa kulluhum aatihi yowmal qiyaamati farda parce que responsabilité individuelle la kon kii tànn na xam ni dafa war a libre te xam ni li muy def moom kese moo koy assumer responsabilité am la kiy tànn warul jaay warul tànn wala boog waruñoo jënd kàttan parce que bu jaayee bu fekkente ni ki mu tànn daf koo tànn parce que dafa jënd kàttan su boobaa trahir na trahir na kóolute bi nga xamante ni ak témoignage bi nga xamante ni moom la waroon a def parce que juum ci tànn lor gi du yam ci yow kese mais lor gi day jàll ci leneen mooy day laal day day day laal société bi kon carte du lu ñuy waxaale moo tax jullit bi sëñ ta fal ni parce que sama mbokk la du critère de choix wërta tànn parce que sama xarit la wërta tànn parce que sama sëriñ la wala sama taalibe du critère de choix donc loolu mënul nekk nattukaay ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa moo ni bi muy lim ñett ñett ñoo xam ne su ëllëgee yawmal qiyaam yàlla nee na du wax ak ñoom ñoom duñ dem procès dañ leen di condamné d'office daf cee boole ni ci ñett ñi ne ak koo xam ni dafa fal njiit falu ko lu dul ngir intérêt personnel falu ko lu dul ngir defal àdduna falu ko lu dul xëy na ay marché yu nga xamante ni wóor na ko ni su gañee dina ko am nee na kooku su ëllëgee yawmal qiyaam kooku du dem procès ci feneen yonent bi sallallahu wax ni bis buñ demee ba sànq confiance bi kóolute gi dépôt bi mu ne nañ xam ni bis penc ñu ne ko sànq kóolute gi mooy lan mu ne bis buñ demee bis buñ àggee ci bu ñuy tànn wala ñuy dénkaane ay responsabilité di ko jox di ko matut nee na bis bu ñu bu ñuy tànn du ñu xool critère xam-xam compétence jub mais ñi ngi koy jox dañuy wóor ne mënuñu ko yéen bi salaa salaam nee su boobaa dañu xam ne bis penc soreetu alquran dafa tënk critère yi nga xamante ne nii moom la ñu tànnee njiit ci ñaari aay te sooy xool aay yi aay yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay melal directement parce que moom mooy incarner leadership par excellence moo tax yëpp aay bi yëpp yàlla subhanahu wa taala mi ngi jëf mi ngi jëfandikoo pronom deuxième personne du personnel deuxième personne euh, deuxième euh, deuxième personne du singulier mooy fi mu waxee subhanahu wa taala ni soo xoolee aay bi di nga gis ni juróom-ñetti critère la dégagé juróom-ñetti melokaan yoo xam ne war nañ koo xool ci njiit mu ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta faddan galida alqalbi lan faddu min hawlik faafu anhu wastagfir lahu wa shaawirhum fi l amr fa ida azamta fa tawakkal ala allah allahu akbar juróom-ñetti critère yoo xamante ni waxtu bi du ñu may ñu faram fàcce mais li ñu jot a wax dugg na ci boo tànnee njiit ni nga ko war a tànne teg ko ci critère yi nga xamante ne nii wax nañ ko conséquence bi mooy lan mooy da am bon gouvernance conséquence bi mooy da am in gouvernance in gouvernance vertueuse te yoon wi gën a gàtt yoon wi gën a gàtt ngir am gouvernance gouvernance vertueuse mooy l'islam l'islam mooy yoon wi gën a gàtt ngir am ay njiit yu jub loolu suñ koy wax du farde maanaam doo ko wax loolu suñ koy wax ce n'est pas subjectif mais c'est objectif les mën a démontrer la parce que l'islam lu ñu yor du théorie de wala du théorie kese l'islam euh, doxal na projet de société l'islam bi fi ñëwee ak léegi ci ay jamono yu wuute ci ay siika yu tegaloo yu bari ci ay societé yu ko wóoru doxal na fa projet de société mais fépp fu mu ko nangulee mu doxal naataange ak njub ak jàmm jëm digga woon réalise na ko ba fi na nii nag keneen ku dul moom sa projet te théorie bi jàmm ji nga digee ci ci formam yëpp nag muy bu ñu jëlee modernité bi mu ñëwee lim ñu doon dig démocratie lim ñu dig euh, nouvel ordre mondial yi ñu dig bu ci ne soo ñëwee fi ñu jëmee fi ñu jëlee ko gën yëpp kon te soo amee soo amee gouvernance vertueuse mooy ñëpp dañu am jàmm mooy ñëpp dañu am sécurité sécurité ci forme yëpp nag sécurité ci seen bopp sécurité euh, économique sécurité social sécurité juridique sécurité militaire lépp la lay assurer mooy tax nga am njiit boo xamante ni yittey askanam da koy yitteel parce que comme yittey askanam moom moo ko war a faj mooy waru koo réere waaye nag njiit su bëggee xam lu askanam nekk foog muy wàcc ci terrain bi ay rapport yu ñu lay defar rek doyul parce que fii dañuy wax ni toujours par exemple dañ naan njiitu réew yi ñoom ñoo gën a informé wu bis bu nekk ñu gis expérience ak njiit ay njiitu réew yoo xamante ni dañuy gis ni ndekete ñoom non non gënuñoo informé wu bis bu nekk ñu gis parce que soo wàccul ci terrain bi Omar ibn al Khattab lu tax mu doon xam li doon xew c'est parce que da doon wàcc tem di patrouiller boppam bàyyi ko woon bàyyi mu ko woon rek ak police bi ak gendarmerie bi mais daf doon wàcc ci terrain bi moo tax guddi muy gis ñiy dund précarité mu utal ko solution mooy tax mu gis baari ñu ubbi te amuñu autorisation mu tëj lu ko amoon nañ fii ñu président boo xam ni la ko yitteeloon doonu ci woon xaar rapport mais moo ko doon lijjantil boppam mooy suñ président boobu nga xamante ne làkk tubaab moo ko yitteeloo kenn daanu xaar rapport moom moo daan déglul boppam rajo yi moo daan déglul bopp moo daan liiral boppam journaux yi fu mu gis faute corrigé ko rajo bu mu dégg nga journaliste bu def bu def faute mu corrigé su ko déglul woon boppam dugg ci mas a kilifa ci biir këram ah, borom kër ci këram am na loo xamante ni su ko gisalul boppam kenn du ko ko war am na loo xam ne su ko xamalul boppam kenn du ko ko wax même sëriñ si sëriñ si li taxoon su politique yi masaat ñëw ci seen kanam ñu mën leen wax soxlay taalibe yi xam ni taalibe yi yittewoo ñu leen koy wax c'est parce que dañ daan jonjoo ak ñoom dañ daan jonjoo ak taalibe yi ci daara ji dañ daan jonjoo ak taalibe yi ci jàkka ji dañ daan jonjoo ak taalibe yi ci tool yi xam li ñuy dund fu politique yi ñëwee ñu mën koo wax léegi nag njiit bu tëju ci paleem di xaar ay rapport mais luñ bëggul mu egsi du egsi sëriñ bu tëju ci saalam bàyyi fa bëkk nekk buy buy filtré kuy dugg ak ku dul dugg mais ku ko neexul du dugg lu mu bëggul mu egsi du egsi kon njiit su bëggee xam liy xew foog mu wàcc ci terrain bi mooy tax mu xam lu xew loolooy tax nga am njiit boo xamante ni day am conscience bu toll ni bi Omar amoon toog Médine ni fële ca Iraq su fekkente ni am na fa tëni bu bu toj ba watiir fakkastalu fa wala am doodaan buñ defar defar bu baaxut ba am oto yàqu fa ba léegi yàlla mën na koy laaj xam nga ne ki am conscience boobu looloy tax nga am njiit boo xam day am yëg-yëg bu mel ni bu Amar ibn Aziz Amar ibn mooy ni soo ñëwee ñu fal la ki la faloon nga fekk mu nekk tooñkat nekk jalkatikat nekk jàng nu toll ni ni doon jànge ak ni doon tooñe nanga am na nga am nu ni toll ci maanute ak jubal ak di ak yërmande kon loolu rek maanaam gouvernance vertueuse tànn tànn bu baax li mu lay may mooy ñëpp nekk ci jàmm loolu rek mooy conséquence bi ki am ki am doole bi ñemee tooñ ci néew doole ki ki ki néew doole du ragal ki am doole parce que ñëw mu ko écrasé ku ñàkk jariñu ku ñàkk jariñu léegi nag éléments yii suñ ko appliqué ma wàccee ko léegi ci kaawu Sénégal ñun sénégalais yi mooy ñu nga xamante ni. Euh, dañu paradoxal maanaam sénégalais yi mooy ñoo xamante ni dañuy jël ñax mu wow teg ko ci kaw ñax mu tooy taal ñax mu wow mi ba pare jàpp ni ñax mu tooy mi du la kaal sénégalais yi ñooy ñi nga xamante ni dañuy sóobu ci aw yoon wàccuñu ko de fas yéene wuñ koo wàcc ba pare bëgg a gëm ni fi yoon bi jëm duñ fa àgg <laughs> ndaxte ñëwee ci ñu ñuy tànne déjà ñun biñ commencé tànn du bi ñu amee indépendance du fi colonisation ñëwee mais organisation sociale yi ñu fi amoon dañ daan tànn ay njiit te xëy na sax tànnin boobu suñ ko xoolee léeg-léeg moo gën a efficace sax li ñu démocratie indi mais moo modernité nag moo ñu gëm loolu lu doon démb moom moom baaxut li tey moo gën parce que bokkoon na ci ci yenn gox yi ci Sénégal ni daan tànne mooy ñii tànn déjà duñ mën a nekk candidat parce que bu fekkente ni doo nekk candidat daanaka doo am doo am euh, euh, du la yitteel doo du la amal njëriñ nga tànn koo xamante ni gënut bi ci des mooy même ci tànn bi sax léeg-léeg ñi ñuy tànn duñ xam sax critère de choix yi mooy duñ xam kat code électoral bi parce que mooy duñ ci mën a tricher duñ ci man a intervenir te ci yenn gox yi sax ki ñi ñuy tànn sax duñ xam ñoom ñooy dajaloo collège bi ñu tànn ci dëkk bi mag ñi ñu tànn ñoom ñooy dajaloo xool ki ko mat foofu kan mooy tricher kenn mënul tricher foofu mooy ki ko mat rek la ñuy tànn dañ daan évaluer tamit sa moralité bokk na ci technique yi mooy am na ci ay gox yoo xamante ni suñ daan tànn njiit ñiñ jàpp ni war nañ koo mat dañ lay jël dugal la ci wanag jël benn leget teg dugal ci picc tëj ko ak layu candidat bu ñu woo parce que sooy ubbi booy ubbi layu bi rek picc bi dina candidat bu ñu woo dugal la ci wanag bàyyi dafa fa ab diir suñ dafa bàyyee ab diir ne nga génnaat soo génnee ñoom di dugg ubbi leget gi buñ fekkee picc bi naaw ñu xam ne kii n'est pas digne de confiance ñu éliminé la donc natt sa moralité léegi ñun fii ci suñu tànn en tout cas yi nga xamante ne fii Sénégal bu ñu tànn président de la République ne pour nga nekk candidat nga fournir pièces yooyu neuf yi amul ci benn bu ñuy renvoyé ci moralité candidat bi amul ci benn amul ci bi nañ laaj ay quittance lii ay ay fisc lu nañu laaj la ay nationalité sénégalaise nga doon ko mais amul ci pièce buy renvoyé ci moralité lu tax c'est parce que ñun ñoo ni ni ñuy tànne parce que nii ma wax nii li ma fi wax sànq bi léegi moo ni lislaam wax ñu doxee ñun dañu ne ni lislaam wax ñu doxee ñu ko doxe maanaam yàlla ñun doyuñu ci ni ñuy tànne suñu njiit yàlla doyuñu ci ni ñuy doxalee suñu àdduna ñu consacré ko ak principe laïcité te principe laïcité bi léeg soo waxee ni ok boo nee ab jullit boo xamante ni bi nga nee jullit nga nga d'accord ni yow lépp looy def yàlla nga ciy déglu bi nga nee jullit nga engagement bi loolu lay tekki mooy lépp looy def yàlla nga ciy déglu te yàlla kim la wax nga xool ko ngir def ko mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax boo nee ñun ni ñuy ni ñuy doxalee suñu àdduna mooy dañ ne yàlla du ci bokk lay boo ko wax danaa la non du loolu parce que loolu c'est grave loolu ab jullit mënu koo nangu c'est grave après su ko defee li ñuy def mooy dañ lay développer na la forme laïcité yi waaw ay laïcité yu wuute ñoo am dëgg la ay laïcité yu wuute ñoo am mais ñun bi ñu jël laïcité française te laïcité yëpp dañu am dénominateur commun mooy d'accord nañ ci ne yàlla bokkul ñoom ñëpp seen dénominateur commun mooy loolu d'accord nañu yàlla bokkut léegi ñun yàlla def nañu parce que képp ku produire benn benn jumtukaay képp ku defar loo mënti defar yow yaay wax nu ñu koy jëfandikoo parce que yaa ko gën a xam képp ku defar yow yaa am droit établir notice kenn du gis benn firme pharmaceutique mu defar garabam ba pare dem ci benn entreprise informatique na ko defar ma notice bi yenwul maanaam ki defar moom mooy wax nu ñuy jëfandikoo waaw borom subhanahu wa taala bind nit bind àdduna bi nga xamante ne ci la war a dund defal ko ci li nga ko ci war a defal yàllaa gën a mat ñëpp moo tax daf ñoo jox notice nen yéen ak li fi nekk su ngeen ko bëggee jëriñoo jëriñoo bu leen dig notice baa ngi mooy téere yi wàccee bi ci mujj di al di al alquran léegi ñun d'accord nañ quand même ci ne ñun bañ commencé fal ba léegi bi ñu amee indépendance di fal ba léegi niñ fare ñi ñuy fal yóbboo guñ fi ñu bëgg ñun ñëpp d'accord nañ ñi ñu falagum yëpp tegaguñu Sénégal ci yoon wi nga xamante ni ci la war a tegu tegaguñu ci yoon wi nga xamante ne nii moo ñu may jàmm ak suqaliku ak kaaraange ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu ñun ñëpp tamit bu ñu seetloo. ñi ñuy fal boobu ba léegi tamit ci benn école la jóge ñi ñuy fal ba léegi di leen dénk suñu Sénégal ngir ñu doxal ko ba léegi ci benn école lañ jóge te d'accord nañu dañoo échoué kon école boobu am na problème kon école boobu war nañ koo remettre en cause parce que bu ñuy défendre laïcité dañuy wax ni moo tax ñu am jàmm laïcité moo ñu may jàmm ki gëm yàlla ak ki gëmul yàlla ak ñu wuute ay diine laïcité moo tax ñu ñu am jàpp mais loolu du dëgg laïcité day botti laïcité laïcité boolewul mais laïcité day botti laïcité ki mu botti mooy diine parce que laïcité benn adversaire la mooy diine moo tax bi mu ñëwee ci marché marché politique bi marché démocratie bi dafa nangu képp ko am marchandise marchandise boo mënti am ñëwal nga gaaral ko parce que amul problème parce que sañoo ko ay imposé nit ñi ñooy tànn léegi lu tax bàyyiwul marchandise yu ñi nga xamante ni dañu ne ñoom dañuy déglu yàlla ci seen projet léegi ñu bëgg wax ni kooku moom day boole ñëpp moo ñu may jàmm non dafa am ku mu exclure te kooku mooy noonam mooy adversaire da ko da ko exclure ba pare diaboliser ko li tax mu diaboliser ko mooy laïcité fi mu juddoo ña ko togg ñoom liñ gëm mooy conflit seen relation ak lépp relation conflictuelle muy Occident Occident digganteem ak yàlla relation conflictuelle digganteem ak nature bi relation conflictuelle digganteem ak nit ak nit relation conflictuelle la ci politique relation conflictuelle dafa indi jigéen relation conflictuelle dafa indi ci génération yi relation conflictuelle dafa indi moo tax lépp lu mu togg rek ci conflit la koy togg moo tax bi mu ñëwee au lieu mu bàyyi ñëpp non dafa am adversaire kooku la éliminer diaboliser ko moo tax même jullit bi génnee ci école boobu moom li li li li ñooñu wax rek lay wax mooy benn day wax ni lay laïcité moo ñu may jàmm parce que jullit bi wax loolu moom parce que comprendrewul ni li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi du pour jullit yi kese maanaam yonent yi projet de société bi mu yor suñ ko bàyyee mu doxal ki ko gëm day am jàmm ki ko gëmul day am jàmm loolu mooy différence bi léegi nag ñeneen ñi muy réglé waale mooy ñi gëm fële après dañuy liggéey pour fële mais ci àdduna bi moom ñi ko gëm dañuy am jàmm ñi ko gëmul dañuy am jàmm du exclure kenn alors que laïcité day exclure léegi diabolisation bi mooy moo tax nga gis jullit boo xamante ni moom gëm nañ laïcité moo gën a baax jullit boo xamante ni soo ko nee lislaam lañ ne la ko ñee sa moom lay tari mooy du gis li ci lislaam lu dul soo ko nee charia baatu charia soo ko waxee du gis lu dul dimension pénal bu charia kese mel ni charia dimension pénal kese la te charia du dimension pénale leneen lay lijjanti ba pare dimension pénal doo ko ñëw moo ci mujj sax parce que conséquence su projet bi lay doon. saa yi ñuy tànn kon wax ni déjà si bi suñ problème la ci suñu ni ñu war a tànnee en tant que ay jullit problème la. moo tax moo tax projet l'islam bi xamuñu ko parce que ci clandestinité la nekk parce que dañ ko ni yow marché bi soo fi ñëwee ñëpp dañuy lal seen i taabal euh, wékk seen i marchandise ki ko yore nag am na ñu ko yor ci marché bi de mais bu ñu yoree su ñëwee dañ koy dugal ci seen saak di ko nëbb parce que leen du ko fi wane. donc mu nekk ci clandestinité donc ñu nekk ci marché bi duñ ko gis moo tax yeneen marchandise yi lañ xam xamuñu marchandise bu l'islam bi dafa war a génn ci clandestinité boobu loolu mooy maanute mu proposé comme ñëpp. su ñu neexee ñu tànn ko suñu neexee ñu tànn leneen ginnaaw amuñu amuñu droit imposé kenn ñun suñuy tànn tamit bokk na ci li ñuy xool ne ok est-ce que am na expérience est-ce que est-ce que am na ah, nu mu tëddee euh, na état wala est-ce que homme d'état la ñun encore Sénégal ci suñu expérience guta guñ dugg ñooñu ñuy tuddee ay homme d'état ñoo ñu ci dugal. ñoom ñuy wax ni dañu am expérience jaar nañ fii nekk nañ directeur nekk nga ministre nekk nga député et cetera ñooñu lu ñu dugg leneen ñooñu si dugal parce que problème bi du problème mu du problème mu expérience loolu alquran moo ñu ko jàngal yonent bi salaa salaam pratique ko mais Yuusuf bi ma tudd sànq bi ñuy ñëw di ko fal ci période bu jafe moo mi war a gere crise wala élaborer benn plan de résilience boobu Youssouf mësul pratiquer benn yoon état ñu ñëw sas ko bu difficile noonu te daf ko réussir kon mbir mi nekkul ci ne ndax mas na faa jaar ak mosu faa jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy nommé bi muy signé décret bi nommé Usaama ibnu Zeyd comme général boobu Usaama li ëpp liñ koy jox ci at ñi 18 maximum 20 ans la kon xale la woon su dee expérience amu woon dara. moo tax même yonent bi salaa salaam bi mu signé décret bi magu saxaaba yi dañu contesté ne ko parce que xale la am na ñu fi nekk te ñi ñu amaloon affaire mooy Rome yi nekkoon puissance militaire amoon expérience su xeex ñu ne ko non il faut nga changer ko jël ko gën a am expérience yonent bi salaa salaam jàngal ne affaire bi affaire expérience affaire man ko la yonent bi ne wax leen ma lépp ba mu des affaire âge indi luñ ko benn criter lu dul expérience yonent bi wéyal dogalam. même bi mu faatoo ndax avant avant ñuy dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa faatu mais saxaaba yi dañu dellusiwaat à la charge ne Abu Bakr bi ñu falee Abu Bakr ñu nekk Abu Bakr foog nga la décret bi Abu Bakr ni yonent bi bi mu koy bi mu koy nommé ñun ñëpp ñu nekk fi moom mu nommé ko man ma koy changé duma ko jindi noonu la ko bàyyee mu dem te ndam li ma am wax nañ ne amul amul amul armée jullit bu gën a mucce arméem maanaam moyen de mort ak moyen de blessé bokk na ci li ñuy tànne tamit fa laay jeexale mooy question wu ancienneté question wu ci pratique dara loolu tamit yonent bi sallallahu alayhi ci pratique am ci pratique am wan nañ ni mbir mi du foofu ndax yonent bi sallallahu alayhi saxaaba bi ñuy wax Abu Zar dafa mës ñëw ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa bëgg nga nommer ma ci benn pos yonent bi sallallahu alayhi ne matoo ko attanoo ko foofu tamit parce que léeg-léeg. Euh, mbooloo suy egsi ci nguur day am ñu bëri dañ ñoo xamante ni dañ ko xeexal suñ xeexee ba egsi ci nguur gi léeg-léeg da ngay jàpp ni da nga wal da nga leen war a récompenser ci fal leen déedéet buñ xasee ba egsi ci gérer état waratoo xool ki xeexoon démb ak ki sacrifié ki ñu tëjoon non da ngay xool nag ñu ko mat ak ñu ko man moo tax yonent bi salaahu salaam Abu Zar ak sacrifice yi mu def yëpp tuubal giiram yëpp. nekk ci saxaaba yi gën a mag mais bi bi ko yonent sallallahu alayhi bi mu waxee nañ ko nome yonent bi nag matoo ko dafa nome ñu nga xamante ne ñoo ko gën a néew ancienneté parce que nome na Amr ibn al-As na Khalid ibn Walid ci kaw Abu Zar te ñoo ñoo ko gën a néew expérience kon mbir mu daa feeru ancienneté léegi nag jullit yi yàlla subhanahu wa taala daf ni parce que yàlla daf ñu may liberté ñu tànn toujours nag borom subhanahu wa taala daf ñuy wax tànn bi gën daf naan ñu yoon waa ngi nii mais ay yeneen yoon a ngi nii may naa leen nag sañ-sañu ngeen tànn yeneen yoon yi waaye yoon wii su ngeen ko tànnul weneen yoon wu ngeen tànn du ngeen àgg mu nañu bato baa ngi nii bi jëm ci tefesu mucc waaye yeneen bato ngi nii kum neex nga jël ko waaye ku jëlul baso bato bii ma ma ma ma joxoñ beneen bato boo jël dangay ngay suux moo tax imaam daam imaam daam Njaay mi mas naa ko dégg bu yàgg mu ne dara doxul Sénégal fii dara doxul te alhamdulilah ba dara doxul mu ne parce que bu dara doxoon ñu am problème parce que yàlla daf ñu wax ni biton bi ngeen war a bës ngir machine bi dox ñu lànk bësuñu biton yi bës beneen bouton bu bu doxoon ñu am problème wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf jërëjëf docteur Ismaïla Diop jazakallahu xayran ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne moom la ñu defal exposé bu am solo bi nga xam ne moom la defal exposé boo xam ne waxtu wi mooñu tënk waaye ku ne xam na ne fi mu daaneele kuy déglu waxtaan wi danga naan foofu la tàmbulee waaye fi mu ko tàmbulee mu kawe lool mu wàccee ko ba indi ñu ci Sénégal tey day tegtale ne mi ngi doon wax ci biir thème bu am solo bi nga xam ne moom la doon waxtaane muy solo si nga xam ne lislaam amal na ko tànnu njiit a yittewoo ko lool waaye rawatina nag suñum réew fii ci Sénégal mu tàmbali wax ñu ni nga xamante ne njiit mënta ñàkk yonent bi ne bu ngeen doonee ñett rek tànn leen njiit kon nag bu ñu ëppee ñett kon ba doonub dëkk doon am réew rawatina kon mu gën a nekkati loo xam ne farata la waaye yëmut ci loolu ñëw na ci contexte bi nag ci Sénégal dëgg-dëgg fi nga xam ne fi la ñuy dund tiim ko ci kaw jàngat ko njàngat moo xam ne boroom xel yi mën nañ cee jàngate lu bari. defe naa li docteur Ismaïla wax di ko def ay taalixaat mën na koo gën a lëndëmal ndax leer na ba noppi te dañuy njëkkante ak waxtu wi ñu sant la bu baax defe naa yaakaar ji mbokk yi amoon ci yow ba ne yaay def eh, exposé ubbi thème bi mate nga ko sëkk. ndax bañ koy tànn nag di ko waxtaanee jotaay boobu fekke woo ko woon imaam Ahmad Daam biñ proposé thème bi moom lañ waxoon ne na ko waxtaanee. mu pour proposé la ne nañ jël ki nga xam ne mooy docteur Ismaïl yaakaar naa dina ko jekku waaye ku déglu dina xam ne da ngaa junju waaye teg nga sa baaraam fi nga xam ne foofu la taab gi nekk yàlla nañ ko yëg nag ndax ñun ñemewu ñoo faju ñun buñ yëgee buñ ñu bësee ba ñu yëg gi dañuy daw song ki ñu bës naan ko lu tax nga ñuy bës moo tax semaine bu jot ñu kenn jabolise laa jabolise ba dootoo ñemee wax bu ko defee feebar bi des fi rek yow nag bës nga taab gi tey bësin woo xam ne gaañu waaye yëg nañ ko yàlla na yàlla fay la ni ñu def mooy wéyal jotaay bi jox ñi nga xam ne ñoom lañ ciy toftal ci ay boromi xam-xam ñu war a indi seen participation ci thème boobu imaam Ahmad daam la ñu déggoo woon ne bu euh, docteur Ismaïl Pare moom la ñu jox kàddu gi. ñi ngi dalal bu baax euh, excellence euh, Serigne Thierno Diakhaté ci jotaay bi honorable député Serigne Cheikh coro Mbacké dëkk ci dëkk bi di kenn ci sëñ Abdou ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal wàllu politique ñoom it teew ci jotaay bi. waaye honorable député Abdoulaye wilaan moom itam teew ci jotaay bi moom teewaayam njëkkut tey Abdoulaye wilaan bañ koy def fële ci kër sëñ Abdou nii ñuy def ci taabal gi ñu doon participer jotaay bi la bokk. boobaak léegi lu sëñ Abdou nekk mu nekk ci ànd moom moo tax fii jotaay bi du jotaayu partisan waaye jotaayu ànd kóllëre la. ànd kóllëre yu réew mi yitteel nag kenn ku ne mën ngaa jàpp ne nii nga koy faje kii ne dama koy solal mbaxana kii ne dama koy solal dàll l'essentiel na ñëpp ne ci réew mi rek loolu moo ci am solo Ablaye ñu ngi lay dalal bu baax a baax. naka noonu suñu sëriñ sëriñ Assane Mbacke ñu ngi koy dalal ak kilifa yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi yëpp jamono ji docteur Ismaïla def exposé kon ñu jox imaam Ahmad Dam euh, imaam man ngaa ñëw fii da di changé place ñëwal ni caméra yee tax <laughs> bisimilah ñu déglu kon imaam Ahmad daam mu jël ay minitam buñ noppee jox ki nga xam ne moom lañ ciy toftal incha allah bisimilah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu. di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bi yàlla na ko yàlla nangu di bëgg lool ci li ma dégg boobu ba léegi suñu jarbaat suñu doom suñu rakk docteur Ismaïla Diop def ko euh, man am naa ci satisfaction c'est-à-dire li ma ci doon séntu ne xëy na bu ko defee dinaa ko dégg dégg naa ko su ko defee man sama kàddu gi mi ngi jëm ci waxtaan ci loo xam ne daf ma jaaxal daal bon ma wax leen ko ba xam ni ma jaaxale leen jaaxale wala déet su leen jaaxalul ngeen wax ma lu tax yéen jaaxalu leen li ma jaaxal mooy euh, sénégalais yi mbirum tànn njiit jëluñ ko au sérieux yi ci sama gisin mbirum tànn njiit jëluñ ko au ñi bëgg ku leen fal jëluñ ko au ñi leen di fal jëluñ ko au lan laa tudde loolu mooy ni ñuy defee campagne ñaare ñu bëri ci policiers yi dañ ma baal suñuy campagne dañ naan dañoo ñëw ngir ngeen tànn ñu nekk seeni surga waaye nag dañ leen di fay loolu laa mënut comprendre parce que ki nga bëgg mu tànn la ngir nga liggéeyal ko loo koy lu tax nga koy fay loo loo ci am yow ba koy fay bëgg mu tànn la loolu policiers yi leer luñ ko. alal ji ñuy dajale di ko leb léeg ci banque yi di ko en tout cas di ko jëlee di ko tasaare ci ay ay soirée ay ndaw rabbi nag ay ay mbir ay financement ak yooyu xaalis boobu ngir ñu ngir ñu fal leen léegi nuñ koy réglé après ñoom donc loolu man euh, comprendre ma ko loolu tax na même bu ñuy fal député yi liy wane ne sérieux wuñ te man li ma jàpp mooy ñun ñëpp dañuy tricher mooy politicien bi bu ñëwee di def campagne li muy wax kenn du ko déglu ay projet yooyu yooyu ci ruq yi lañ koy wax mais population yi moom li nga indi ci xaalis la ñuy xool parce que pour ñoom li nga wax waxu waxuloo dëgg bëgguloo ñoo liggéeyal da ngaa bëgg a falu pour jëriñu léegi fay fay ma léegi njëgu bamba yi day tuut te teew bala nga ma fi digloodul def jox ma léegi léegi rek su ko defee nga jox ko 5000 wala aw nag wala am xar xam nga kooku il n'est pas sérieux loolu moo tax bu ñu demee même bu nee assemblée assemblée nationale ñu wote ay député yóbbu leen fa na monsieur le maire Baal léegi ñun assemblée bi nee nañ yi ñun lañ fa nekkee parce que dañ ne ñun ñëpp xajuñ assemblée kon foog ñu def pexe pexe yi mooy lan gox bu nekk tànn kenn mu teewal leen assemblée kon ki dem assemblée ñun la fa teewal suñ bëgg-bëgg la fay amal lan moo tax. ñooñu ñu fa teewal léeg-léeg problème yi gën a rëy suy xew dañuy takk suñ ndigg dem wër assemblée ne leen xaar leen rek ba tudd fi la ngeen bëgg a def loolu man comprendre ma ko parce que su fekkee ñun ñun lañu fa teewal lu tax ñuy yor yat di leen xaar et c'est parce que dañoo xam ne teewaluñ ñu fa te boobu tudd nañ fa wax lu bokkule li ñu leen sattoon kon tricherie am na fa ma bëgg a wax mbokk yi ne leen mbirum. tànn njiit gën naa sérieux loolu mbirum tànn njiit gën naa sérieux loolu tànn njiit seede la seede te seede alquran dafa xaraamal ku ko nëbb bu fekkee gox bi dafa am ay doomu gox bi yu proposé seen bopp ne dañ ko bëgg a liggéeyal nga xam ki ko gën a man te woteeloo ko da ngaa nëbb te nëbb seede ku ko def aasimun xal bu la alxuraan wax kon jullit ñi amuñu droit ñàkk bokk ci ñuy tànn parce que mbiru politique kenn mënu cee neutre du mbir yi nga mën a yable ku la ci wutu yaay demal sa bopp wala ñi dem yàqal la xam nga réew muñ ne mat na dix-huit millions ñu ne ñi war a wote ñi mën a wote sept millions lañ sept à dix-huit matul sax mocc bi ba pare seen yooyu du ñu wote bu ñu demee ba am 4 million rek daanaka sant yàlla waaw 18 million nu leen 4 millions mën a tànne la njiit sériwul loolu sériwul ñu ko def séréwuñu kon foofu rek laa bëggoon ñëw ne man ni ñu jàppee mbirum wote Sénégal man comprendre ma ko parce que pour man gën naa sérieux fi ñu ko teg mooy dañuy jàpp ne ñun ñëpp ñoo am warugaru wax ki ñuy tànn kan la ndax boo tànnul ki baax ñu tànn yambar wax naa ko sama benn soxna ci élection yi yële 2012 fekk coow li bari lool candidat yi bari lool mu ne moo man daal li ma koy faje mooy du ma woteel kon ma ne ko kon nag yambar buñ ci buñ fi fal yaa ko fal parce que boo tànnul kibaax ñu tànn ki bon salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah jërëjëf Imaam Ahmad Dame. kon ñu jox ki nga xam ne mooy Serigne Ababacar mbub mu ñëw moom itam joxe eh, ay eh, xalaatam ci tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane sant bu baax imaam Ahmad Daam ci kàddu yu am solo yi waaye ci ni mu ko tënkee ndax xam ngim xam ne li ñu waajal ci waxtu bi bari woon na waaye yéex a tàmbali gi tax na lu baree bari dem na ci temps bi kon ñu jox Serigne Ababacar bismillah laajte su doy wa rahmatullah wa barakaatuhu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sof suñu nuyoo ci mbokk yi nga xam ni ñoo ñu jiitu rek waxtu wi dafa xat moo tax xëy na loolu lépp duñ ci delsi waxtaan wi bu ñu ko dégloo mel na ni kon dañu naan Sénégal xëñ nañu musuñoo tànn wa illaa kon ñi ñu doon waxtaane ni ñoo nekk ci toolub lislaam kon amaana kon xëñ na nekkuñu ca nañ ca war a nekke wala boog am na fu jafe-jafe am ndax ki yëg ni am na responsabilité xam ni ki yàlla yónni ci ñëpp moo xam le ni bu ñuy tànn fu mbooloo ne nga tànn koo xam ni xam nga ku ko ko gën a man kooka war nga yàlla war nga yonent bi yaakaar naa ne ñi war yàlla ak yonent bi bari na kon bu fekkee dëgg lañuy waxante ñi war yàlla ak yonent bi bari na réew mi nag dañu am jafe-jafe ndax di professeur di waxtaan fi ma toog maa ngi liiraat constitution bi di xool da ngay gis ni boo demee ci ci article yi foog naa article 28 bi la ñuy wane ki nga xam ni dafa war a bokk lim nañ yu baree baree bari ba ni war naa mën a doon koy lakk farañse di ko mën a bind mbind moo xam ne si mbind mu mucc ay ba noppi tamit yamul ci loolu waaye man koy waxit waxin woo xam ni wax yoo xam ni wax yu wax waxin wu rafet la wala wu jub la xam nga li lay wax kon imaam ni la réew mi du réew mu sérieux mooy lu toll ni ko war a jiite réew mii ak li fi nekk ak li fi la def ak li mbatitam ñu ni ki koy jiite ñoo ngi séentu ci moom mën a làkk farañse boo ko mënee làkk nag bu mënee làkk farañse nag bu ko mënee bind nag ana ban jeexit la mën a am ci soxla réew mi ak euh, nit ñi leen yittewoo te lii ma wax ci constitution bi lañ ko bind waaye yemul ci loolu man wax dëgg yàlla imaam posé nga ay problème ay question waaye man moom wax dëgg dama am jafe-jafe jafe boo xam ne xam naa ni duma ci gaaw a génn li ko waral mooy réew mii dañ ni quatre-vingt-quinze pour cent yi wala lu ko ëpp wala man mën na maa wàññi ba quatre pour cent sax kenn du ko contesté quatre-vingt-dix pour cent yépp njabootu yonent bi lan alayhi salaatu wasalaam te biir quatre pour cent yooyu nee nañ dañoo toog waxtaan daal di tënk loo xam ne moonu tënk muy charte fondamentale bi mooy la constitution ñu dem ca muxaddima ba muy préambule bi ñu wax ni ñun foñ nañu alxuraan waaye jël nañ la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la déclaration universelle des droits de l'homme ci loolu lañ dellu di root kon li yàlla waxoon ni kalimatullahi al-hulya dan naan nañ ko sànni ci àll ba kàddug yàlla moom tiimul fii décret président de la république sax moo tiim kàddug yàlla ci réew mi c'est en tout cas problème la ci man man jafe-jafe bu rëy la nga dem ci article trois bu constitution bi ñu ni képp koo xam ni jóg nga ni da ngaa bëgg a liggéeyal askan wi ci politique bëgg doon seen njiit wala seen maire tere nañ la nga sukkandiku ci yonent bi lu mu wax mbaa lu mu wane. article 3 bu constitution bi bépp diine lan la wax tere nañ la ko te pourtant ci sa tour lañ ko def imam sa tur lañ ko def c'est au nom du peuple sénégalais la ñu def loolu. askanu Sénégal lañ ko defee ñu ni on laisse passer amul problème ñu ni yemuñ ci loolu askan wi nga xam ne nee nañ plus de quatre vingt pour cent de musulmans lañu. déedéet du ñu def loolu léegi yàlla yaa ni njaaloo baaxul loolu da nga koy teree ji feneen waaye senegal ñoom daganal nañ ko jigéen ju bëgg a jaay sa bopp kaay ci turu askan wi ñu ñi toog fii ñëpp nag ci turu askan wi jox nañ la ndigal ci nga jaay sa bopp soo jaayee sa bopp nag ba at mi jeex. benn yoon boo ko def dafa am loo xam ni askan wee ko moom da nga ko cee dagg ci lan la fay ñu delloo ko ci askan wi amul ku toog fii ku ko ku ci ku ko mën a waat amul ñun ñëpp a ci lekk. dama la ku toog ak ku fi toogu la ci yam amul ku ci lekkut ñu ni yamul ci loolu nee nañu carte dafa aram ñu ni taxawal nañ leen tool boo xam ne toolub àllarba boo xam ne yéen ñëpp a xëy ci seen tur lañ ko def muy loterie national Sénégal LONASE muy liggéey ay milliards milliards yooyu amul ku toog fii ku ko waat amul. kon gis ngeen ce qui est dafa gën a xóot lii ñuy wax te dëgg dëgg dëgg dëgg man ragal naa ni suñu digganteeg suñu borom moo nar a dagg suñu digganteeg suñu borom moo nar a dagg. wa man lam yaxkum bi ma anzalallah fa ulayka humul kaafiruun humul faasiquun humul zaalimuun kon mënee su la guddal ndax waxtaan wi wax ji dafa leer nañ waaye li wér te woor mooy réew mi am nañ jafe-jafe am nañ problème xaw ma bëgg nañ ñu wax ko xaw ma bëgg nañu wax ko waaye lii dëgg gi dees na ko wax ñun dañu am jafe-jafe ak dégg diine loolu mooy li wér lii ma leen wax ak yeneen yu dul yooyu mi ngi ci biir réew mii mi ngi ci biir constitution bi mi ngi ci suñuy loi ak suñuy règlement tout le monde se tait kenn waxu ci ñu bëgg a bàyyi yaakaar ne ñun fi mu nekk danañ dem waxtu wu ne bu ñu demee ba yaakaar danañ dem yàlla indi laat nu leneen loo xam ni danañ la jël huit te kenn du ci am saafara wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf sëriñ Aboubacar Mbuub jazakallahu xayran commenté yi am na solo lool waaye joxoñ na yeneen i tomb yoo xam ne day wane ne problème bi gën a sérieux imam <laughs> affaire bi réglé gudde ah waaye sëñ Babacar Mbuup lay cité fii nga génn itam am na solo lool ñu jaajëfal ko bu baax dalal imaam Serigne Mor Mbay ci jotaay bi moom itam lii ñuy waxtaane nii muy luy jëmale réew mi kanam ak diine ji waaye itam bañ a seexlu politique bi ndax lislaam seexluwu ko ci loolu lay taxaw saa su nekk ci ay min baram di ci jàllale message yu am solo yooyu ngir njëkkanteeg waxtu wi kàddu gi dañ ko waroon a jox oustaz Mouhamadul Amin Dramé waaye dafa wax ne ñu jël kaddoom jox ko docteur maxtar Kebe ak suñu beneen oustaz boo xam ne mi ngi fi di oustaz jànqe kon dañuy woo ki nga xam ne mooy docteur maxtar Kebe mu ñëw moom itam joxe ay kàddoom kàddu yi moom mu gudd mu gàtt euh, am na solo ba noppi ndax fi mu xas ba tegu mooy fi réew mi toll. fi réew mi toll nag ñu di ko wax day tax ñu gën a am yëg-yëg ndax dégg nañ li imaam Ahmad daam wax ci solos dem wate ji waaye dégg nañ li euh, docteur Ismaïla Diop wax ci. njiit ak solo sim am ak niñ ko war a tànne defe naa bu bind boobu leeree ci ñun par parloo day daal di jeex waaye dañuy daal di dox ci loo xamante ni moo ñuy jëme ci kanam kon oustaz Kébé bismillah asalaamaaleykum donc sant yàlla bu baax mi nu defal ñu am daje bu màgge nii di ziyaare sëñ di ko jox wàccuwaayam ak ak i di kontaan lool ci suñu kilifa gi ñu àndal mu magal jataay bi di imam daam li docteur Ismaïla wax daanaka lu ñu ci dolli amu ci ndax li ñu soxla ci thème bi yëpp wax nañu ko waaye man imaam dafa am njàqare waaye man ma am beneen njàqare mooy dañu daan tànn xëy na tànn ba du mat walla xëy na tànn ba du respecter critères yépp waaye man suma njàqare mooy liy dox bu jubee ndax dina nu mën a tànnati man loolu mooy suma problème mooy xeexoon nanu ba mu neex mu naqari bu jotee ñu delloo sunu sañ-sañ ki dëkk ci am réew juróomi at walla juróom-ñaari at benn bés rekk la ci am di wane sañ-sañam yi ci des yépp ay gaay la ko tayle jox leen alalam jox leen kàddoom sagal leen ne leen bu ngeen demee ba gàpp sàngam ngeen delloo ma ko waa léegi nun fi nu toll li ma jaaxal ak liy xew mooy est-ce que sax dina nu mën a tànn bay tànn tànn bu jub walla déet dara waru ci donc li nu war a bàyyi sunu xel mooy am na lu nu am loo xam ne li waratuñu ko ñàkk li nu am te waratu ko ñu ko ñàkk mooy ku fi toog rekk noo la fi teg te ak loo mën a wax réew mi mën nañu tànn xëy na choix yi nuy tànne moo bariwul mais ñi fiy teew bu jamono ba jotee kañu ñu tànn ca jamono boobu histoire dafay wane ne mooy kanu waroon tànn moo xam matal na ko moo xam matalu ko waaye nu bëgg nu xañ mën a tànn jàpp naa ne loolu la ñu war a wax te bu nu bàyyee liy xew muy dox dina nu xañ mën a tànn nit moo bëgg a imposer boppam alors dinu xamal ki baax ak ki bon te nun wax dëgg yàlla xam nañu ki baax xam nañu ki bon donc nu nu dimbali bu ko defee nu mën a tànnal sunu bopp bu gàpp ba jotee bu dul loolu coow lay jur te coow baaxul réew mi réewu xorma la réewu jàmm la ñépp nañu def seen effort ba wax dëgg yàlla ñu delloo na suñu kàddu nuy tànn ki nu bëgg moo xam man na ko moo xam mënu ko lu ci am ci conséquence rek ñu jël ko waaye la leen nu ñu dugal def nu yóbbu ci toow jazakumullah xeral jërëjëf oustaz euh, Makhtar kebe moom it fi mu génn am na solo lool dafa mel ne ñun tam ñoo ngi dialogue fii suñu dialogue <laughs> dialogue bu tegu ci yoon sax parce que moom nee na daal lu ci mën di xew nañ fexe ba ñu jox ñu bis boo xam ne danañ am sañ-sañu tànn defe naa ñay dialogue itam loolu la ñuy dialogue kon euh, nañ nañu yóbbaale boobu euh, bu ñu amee ab date incha allah danañ mën a jël nag leçon yi ñu docteur Ismaïla jox ak yi ci borom xam-xam yi teg ngir mën a xool ku ñu tànn ci ñooñu. bu boobaa danañ jiitalaale leneen loo xam ne conseil constitutionnel laaju ko gaa yi te mooy seen i jaar-jaar ak seen njub ak seen jikko yu rafet ni nga xam ne noonu la ko suñu conférencier waxee léegi. kon dañuy jox kàddu gi imaam Ibrahima Faye e, mu ñëw moom itam joxe e, li nga xam ne mooy participation am ni nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ci waajale noonu jotaay bi bu daanelee ñu jox Oustaz Diankhe mën naa jege si comme ça ñu njëkkante ak waxtu wi e, jaajëfal bu baax kilifa yi fi teew yëpp léeg ma geesu rek gis koo xam ne waroon nañ koo nuyu tudd turam wàccee ko wàccuwaayam waaye jotaay bi ni mu bindoo moo tax imaam Lamine Sarr laa taqalool nii bokk ci jotaay bi bañ ko dalee def ba léegi di kenn ci sëñ Abdou ñu gën koo xamee professeur lamin Sarr di boroom xam-xam moom itam toog ci ji fegoo ak ñun ñu ngi koy wàccee wàcc waayam di ko dalal bu baax a baax ci mboolem cër yi nga xam ne yelloo na ko ci jotaay bi yelloo ko ci xam-xam waaye yelloo ko ci barabu Baay Seex Xadi bi imaam Ibrahim bismillah bismillahi rahmaani rahim <clears throat> alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamu aleykum wa rahmatullah <coughs> man euh, li ma bëggoon wax Ismaïla presque daf ko wax mais da ci am tuuti rek lu ma ci bëgg a dolli mooy euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee àdduna muy génne àdduna lënd ci yoor yoor dencuñ ko ba àllarba euh, saxaaba yi jaaxle woon nañ parce que loolu da leen a am na ci ñoo xam ne defee woon nañ sax yonent bi du dee ak fi leen féetee woon ñii ñu ngi waxtaan ci kan moo koy sang ñii ñu ngi waxtaan ci fan lañ koy denc waaye ñu ngi waxtaan ci suñ ko robee kan moo ko ji kan mooy jiite jullit ñi après trois jours dencuñu ko yonent bi sallallahu alayhi ñi mu jiite woon dalee naa xam yar leen jàngal leen bokk na ci li histoire yéem ci moom mooy ni mu xamee ay nitam leader boo xam ne ni mu xamee ay nitam kenn mësu ko gis mais bi muy faatu xamal na leen lu nekk ci àdduna ba àllaaxira ba kere bu ñu dugg aljana lu fi xew wax na leen ko mais tànnalul leen ku leen di jiite tànnalul leen ku leen di jiite da bàyyee problème boobu loolu moo tax bi ñu toogee waxtaan ba ñoom ñëpp ñu d'accord ci abu Aboubacrin mu nekk seen jiit ca suba sa abu Aboubacar bi muy def xutba li mu jëkk a wax mooy xad wullitu aleykum wullitu aleykum ñi dégg arab xam nañ ne wullitu mooy da ngeen ma fal xad wallaani xayri wa huwa antum maanaam dañ maa fal man faluma sama bopp moo tax aw xeet ñooy tànnal seen bopp ku leen di fal ku ñuy ku leen di jiiti aw xeet kenn du ko tànnal njiit moom mooy tànnal boppam ku koy jiite yonent bi doy na ci misaal li mu xam ak ni mu matee ak ni mu xamee ñi mu yar mais nangu problème bu ne wax na leen ko mais tànnul leen njiit da ko bàyyee moo tax loolu xeet bi ñoo am àq ci tànnal seen bopp njiit beneen bi euh, ci xutba bi nga xam ne ubbi nañ ko ñëpp dégg nañ xutba bi ni mu demee ci Abubakar di ko euh, xutba ko boo demee ci euh, Abdul Hamid Ibn Badis ci xutba bii fukki poñ ak ñett la ci génne lépp dafa aju ci kuy jiite nit ñi ak ñi nga jiital lan moo dox seen diggante nag ñoom loolu lu mat a bàyyi xel la ci ci ci xutba bi Aboubacar daf ne walastu bi xayrikum walastu bi xayrikum mooy ñaari sens la gënuma leen bi ngeen ma falee fal gi taxul ma gën leen d'abord parce que man ngaa jiite ay nit doo leen gën même su fekkee Aboubacry moo gën gën am nay ngëneel du fal gi la gënee nit ñi mais yeneen qualité yi ko ko may la ay jëfam mais du fal gi rek parce que nit da lay jiital dañ lay jiital ba pare te fekk ñu la man fuuf ñoo la jiital kon walastu bi xayrikum beneen sens bi mooy euh, du gën ci yéen du dama gën moo tax ngeen fal ma bi ngeen ma fale itam fal gi joxun ma ak ngëneel ci seen kaw ñaari sens yëpp la walastu bi xayrikum beneen borom xam-xam dañuy wax ne compétence Ismaïla tudd na ko léegi imam daam maanaam man mën lañ koy wax ci olof mën-mën xëy na tubaab léegi léeg mu ne compétence léegi léeg mu ne efficacité mais man mën la boo xoolee l'islam li mu xam mooy mën-mën xamul waa ji yàgg na fi xamul waa ji yàgg na am yàgg am na ay jaar-jaar xamul waa ji yàgg na takk ay ndomboy tànk amru bnul amru bnul aas Euh, bi ko yonent bi saa sam jiite jiitalee ci xare bu ñuy tuddee zaatu salaasil boobu amru bnul aas juróomi weer la def ci lislaam dafa dugg ci lislaam juróomi weer xare bi taxaw war a taxaw yonent bi tànn ko jiital ko saaba yu mag yiñ xam yépp muy siddiqul umma di abi bakar mu nga coon ci xare ba faaruqul umma di omar bnul xataab mu nga woon ci xare ba aminul umma di abu hubayta amir ibnul jarah mu ngoon woon ca xare ba ñii xam ngeen ne ñoo ëpp ngëneel amr ibnul aas mais amr ibnul aas moom la yonent bi tànn jiite ko jiital ko ci xare bi pour pourquoi ba ñu demee ci xare ba ma daaneel mbakke ah ba ma demee ci xare ba ñu demee ci xare ba li tax yonent bi jiital ko dafaa feeñ ba ñu demee ñu mu jiite ñëpp ñu dem affaire bi sedd lool ñu nekk ci jamonoy sedd nit ñi bëgg a taal na dañuy jaaru mu ne kenn du taal nit ñi ne dañuy taal mu ne ku taal ma dugal la ci taal bi Aboubacar jog wax ne kii sunu amir la yonent bi saai salaam moo ko tànn mu jiite ñu parce que moo ñu gën a xam xeex c'est-à-dire loolu mooy compétence loolu mooy kafaa fi ñu toll actuellement Sénégal gi ñu toll tembe nga xam ne ñu ngi naan dëgmal nañ am nañ pétrole am nañ lii am nañ lii Sénégal gi kan moo baax ci Sénégal actuellement loolu mooy compétence bi ñu seet seetuñ ko fi yàgg seetuñ ko am ay jaar-jaar seetuñ ko yàgg mais ku mën a seere liñ jëm seere ko doo lekk alal ji doo ko yàq doo ko tasaare doo ko jox say mbokk doo ko jox say doom mais en même temps doo ko yenu dugal ñu ci guutu goo xam ne ñeneen ñi ñëw xeex ak ñun dem tuuru kon loolu day laaj ay mbir yu bare bare bare bare mbokki jullit yi salaamaaleykum wa rahmatullah la ilaha illallah bi baax na de ah <laughs> affaire bi baax na trop jërëjëf oustaz imaam Ibrahima fay exposé bi xaw tuuti kon ñu mën a bàyyi minute ci des yëpp jox la nga continuer ndax fi nga doon wokk moom gars yi ne nañ foofu la yooyu lañ soxla te moo ñuy jëmee ca kanam ñu jox imam jànqe moom itam di imam di borom xam-xam di wëlëre ci Serigne Abdou Mbacke li ma waxoon bi may introduire léegi Serigne Abdou biir jotaayam bii ñi fi teew. kenn ku ne ci yow rek li des ci tàkkusaan gi yëpp sa compétence ak li nga mën a waxtaane xaju ci waaye borom bi cërale na ko ci jikkoom yu baax ba ñoom ñi ñëpp ñu mën a yeewu ci fajar daje ci benn barab dugandoo ci benn biis te seen i daara ak seen i juma ñëw teew fii loolu am ko yombut waaye jikko dana ko maye. li ñu fiy waxtaanee di lu ama am solo loo xamante ne jamono soxla na ko dara génnu ci lislaam nag dara génnu ci diine waxoon naa bi may introduire màggalu daarul moxti biñ koy tàmbalee màggal dañ doon fàttaliku génn àdduna ak maam Thierno Birahim sëriñ Fàllu Mbàkke rahmatullah alayhi wax ne nañu soppi bis bi di fàttaliku bis bi nga xam ne ci la maam no gisee ak sëriñ Touba bi mu tukkee ba ñëw ma ne loolu lim ci jublu woon day mel ne suñ jotaay yi daf koy firndeel maanaam mooy ñu jàngat dafa bëggoon ñu jàngat ki tukki lan moo ko tax a tukki waaye kim dénkoon lan la taxawee ginnaawam mbokk yi loolu mooy politique tur moo wuute rek sëriñ bi dafa am projet de société boo xam ne déranger na colonial bi fi nekkoon mu taxawal ko am fu mu jëm tubaab bi jël ko yóbbu muy dem ginnaawam faaw mu dénk ko koo xam ne procès bi du yàqu mu tànn koo xam ne rakkam la waaye wóolu koo tax mu dénk ko du doon rakkam dong mu dénk ko borom daaru mu taxawee ko ba looloo waral jotaay bii kon bu réew mi tollee fii tey ñuy waxtaane lii danga naan bu fi borom daaru nekkoon lii lay waxtaane bu fi magam Cheikh Ahmadul Khadim nekkoon lii lay bind di ko waxtaane kon ku ñëw ci bis bi di waxtaane lii ku ko interpellé politique sama xel rafetut waaye politique bu diine nangu la ñu jox imam jànqe mu indi li nga xam ne mooy commentaire am incha allah koy jinne jinne okay أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله gannaaw santaat yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te moo yann jàmm yàlla wàcc ci sunu kow ñun ñëpp wa ma bikum min nicmatin fa min allah bépp xiwal gu ñu am ci àdduna ci àllaaxira kenn rekk ñu ko mën a jox mu de yàlla alhamdulillahi rabbil alamin e maa ngi sant yàlla ci teew gi ma fi teew tey man tey laa fi soog teew kon yéen yéen ma fi jiitu loolu nag jikkooy sëñ Abdou Mbakke moo ko waral e, nit la koo xam ne lii mu def sëriñ si yépp war nañ ko rey imaam daam wax na ko xëy na bu doon alal duñu fi indi bu doon lekk duñu fi indi waaye ay jikkoom yu rafet ak oyof gu mu oyof tax na mën na xëcc boroom xam-xami Sénégal yi yépp indi leen ci péncam mi ñu ngi sant yàlla bu baax Eh, mu mel ni tam beneen sant yàlla bi mooy suñu jarbaat bi di docteur Ismaïla Diop eh, yaru lool effacé lool loolu mu ngi ñuy ne ñun ñi di ay magam wala di ay baayam sax suñu demee danañu am ñu mën a remplacer liggéey bi yarisu ni wa yaris min al yaqub mu man ñu donn problème mu Sénégal nag tey Imam maxtar wax na ko dañu war a am sañ-sañu tànn dugg nañ na ci loo xam ne mosuñ ko xam ci ñaar téeméeri at yi nga xam ne Sénégal wàcce ko mosuñu am crise bu mel nii ñu am te waroon nañ ko mën a régler te it tànn farata waaye am na problème bi Sénégal am tey Senghor génnul ci waaye boroom xam-xami diine yi génnuñ ci. léegi bi ñu noddu dafa fekk imaam jànqe doon yëkkati kàddu di joxe wàllam ci waxtaan wi ñu jox ko mu àggale incha allah bisimilah. Euh, kon duñu guddal incha allah ndax li ëppoon ñima ma jiitu wax nañ ko damay wax rekk tuuti ci histoire politik bu Sénégal ndax li ñu dal mosul ñu dal ci suñuy histoire politik oustaz Makhtar wax na ko fi mu ne ñëpp jaaxle kañ lañuy tànn ak nan lañuy tànnee ak yan jamono la te loolu waru doon a am ku ñu dénk daal boo jeexalee war nga dem keneen ñëw ndax réew mi ñi ko war a mën a jiite bari nañu beneen bi su fekkoon ne conseil supérieur islamique bi mat ñi tegoon su fekkoon ne yàquñu ko nekkoon diina dana am cër ay boromi xam-xami diina danañ am cër ca fa ñuy dogalee muy assemblée nationale waaye dañu dem bam yàgg ñu xamal ñu ne sëriñ du politik nit ku baax du politik politik yëfu naxante la yëfi tappale la yëfi gala jaane la yëfi loo wax tey man nga wax leneen ba ñu bari gëm ko kon nag proposition bi buñ génnee ci xat-xat yii te li ñu ci mën a génne tey ñaan bokk na ci te fii dëkku ñaan la dëkku nit ñu baax la lañ nañu ñaan yàlla génnee réew mi ci pax mii nga xam ne dugal nañ ko ci te wolof nee na la dugaloon pax la dugaloon xob ba ca pax ma du ko ci génnee waaye na ko ci yàlla génnee su ko defee ñu amaat beneen conscience politique Ibrahima wax na ko léegi yonent génn na àdduna te dencuñu ko lu dul am na njiit imam ali bi ko gaañe rayee dañ ne duñu dem lu dul am na njiit ndax poste bi warte nekk poste bu vacant ndax xeet day am njiit waaye day am njiit lu mat dinaa di dégg fa lay jeexale Obama daan wax ne Afrique li ñu soxla mooy ay institution yu forte ma ne déedéet li ñu soxla mooy nit ñu jub nga xam ne loo dénk ñu man ko sàmm ndax luwaa nit a koy traduire bu baaxee loi bi baax bu jubadee loi bi jubadi institution yi nit a koy sàmm bu nit ki sellee baax jub institution yi baax jub ndax li ñu dal tey ku ne xam na ne dem ba dara desul lu mooy ak vingt quatre heures élection nga ne dama koy reporter te mënoo joxe benn justification bu leer loolu xam nga ne kenn xamul lu muy nu du ci réew. di ñaanalaat yàlla réew mi di ñaanalaat yàlla ñu yàlla sauvé ñu yàlla xettali ñu liñ fi wax ci ancienneté Ibrahima wax na Omar ibnul Aas waaye am na ku ko gën a gaaw ci xiyaada muy Khalid ibnu Walid moom ñaari weer la am ñaari weer la am xareb ma uta ñëw mu dem ca sowe armée bi ñibbi si yonentu na me ko général kon nag mbir mi man la ak yëg-yëg ak jikko ñu ngi jëm nag ci benn mutation boo xam ne fokk boroom xam-xami diine yi ñeme politique borom xam-xami lislaam yi ñime politique nitu tariqa yi ñime politique ñu réveiller peuple bi ñu xam ni ñuy tànnee ak ku ñuy tànn di tànn lu ñuy jëriñ lu ñuy yërëm lu ñuy dimbale te duñ tànn lu ñuy lor ak lu ñuy nax ak luy lekk suñ xaalis nga xam ne lu mën am baax na dañuy tànn ku jub ndax buñ ko tànnee rek am nañ teraanga àdduna ak teraanga àllaaxira te réew mi li fees ak i borom yi xam-xam ak i niti valeur ñooñu war nañ leen a sélectionné pour jamono yi di ñëw dootuñ duggati ci gute gi ñu dugg ndax gute gi dëgg dëgg dëgg dëgg métti na lool maa ngi gërëm ñëpp di delluwaat di gërëm sëñ Abdou di gërëmaat sëñ Daam imam ndax suñu jumaa jëlee ca Dakar dafa nekk référence dafa nekk référence boo xam ne ñëpp war nañ ci sant yàlla jumaa joo xam ne li mu dajale ci ay kàngam dajale ko ci ay cadre te duñu xuloo duñu xeexoo du ñu ŋaayoo loolu suñ imaam bi yàlla jaarale na ko ci moom kon nag imaam yal na la yàlla gën a dimbale gën la jàppale te it bu ñu génnee ci lii ngeen organiser ay thème de conscientisation ci xalaatu politique ba oustaz man ci bokk ak ñi nga xam ne jàng nañ tubaab te sell ñu mën a tabax réew mi am une nation forte waaye une nation boo xam ne aisée waaye une nation boo xam ne day développé di màgg ba pencam yàlla aqulu qawli hada wa astaghfirullah min kulli dhan wa tubu ilayhi jërëjëf imam Diankhe eh, yal na yàlla fay la contribution bi nga indi am na solo lool te itam wax nga ci thème bi nga xam ne moom la ñu indi joxe na itam ay orientation bi ñu jeexal di lu am solo loo xam ne jar naa baril ndax euh, ñëpp duñ tolloo niveau ci yëf yi waaye buñ baree di ko waxtaane te ñi xam di ko waxtaane bu yàggee ñi xamut te ragaloon ko ñeme ko ndax kumpa dafa raglu te politique ñi ci nekk te nekkuñ ci niñ ci war a nekkee tax ñii nga oustaz Ibrahima fay bu cees ci programme biñ bind nag turam nekkul woon ci ñi war a jël kàddu ci waxtu wi mais professeur Lamine Ndiaye dafa am ngànt ko dab mu wax ne doom nañ ko jox oustaz Ibrahima fay bu cees mu joxe kon contribution ci ay minutes yu gàtt rek ñu daal di ñaan incha allah. bismillah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam na ci turu sama mbokk sama doomu ndey. Cheikh Mouhamadul Amin di nuyu Serigne du Mbacké bu baax a baax ndax at ba at lañuy ñuy daje man ak yéen di nuyu sunu imam bii nga xamante ni ku yaatal la di nuyu Oustaz Mbacké nga xam ne ñoo bokk Sud FM xam naa ci turu Lamine damay delloo ñëpp ci benn référence ci wàllu leadership John Maxwell gis nga sunu jafe-jafe ci réew mi ci ñun la ci ñun la euh, John Maxwell dafa bind benn téere tudd ko <coughs> les vingt et un lois irréfutables du leadership les vingt et lois irréfutables du leadership daal ni n'importe qui peut barrer un navire mais pour tracer la cap il faut un leader voire un leadership kon sunu jafe-jafe ci réew mi mooy leader leader nag du dara du ay jikko la ay jikko rek la te jikko yëg nañ ni diine rek ko am parce que toujours dama bind beneen texte il y a trois quatre ans ma ni sans politique bi dafa polluer dama cee bind trois vie daal ni gis naa ci ñett mooy viol violence vol mu nekk ci sans politique bi kon dañ ko war a assainir ñi ko war a assainir nag mooy imam daam yéen seen consort ñetti fee moo koy assainir mooy lan mooy valeur volonté vivacité wasalaam jërëjëf professeur professeur affaire bi tubaab bi na ci man de du neex a commentaire moom ay vivacité yooyu ah <laughs> professeur mi daa tubaab bi ndeke de ah waaye am na solo lool jërëjëf yooyu ay jikko la yu baaxut yoo xam ne baaxut ci pénc mi kon ñu jox imaam Lamine saar moom itam mu joxe rek contribution bu ko defee ñu daal di ñëw ci kàddu yu mujj yi incha allah bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi nekk ci benn position bu perplexe. mais damay sant yàlla bu baax a baax. Euh, bi ñu yàggee ñëw fii di ko fekkee ak sababu daje bi ah. parce que date bi dañuy fàttalenti. xad nara taqallu wajhika fi samaa'i fa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha fa li wajhika shatra al-masjidil haram c'est juste pour dire que c'est une opportunité pour changer d'une direction changer un comportement changer une vision jublu feneen loolu rek la incarné di kontaan ci exposition bu Ismaïl ton intervention ak bu Ibrahima ak bu docteur léegi li gën a jafe ci àdduna yàlla daf ko lijjanti muy lan wala kum fi rasulaay uswatan xasana alxuraan foog ñu xam ne dogma la ak législation ku jàngul alxuraan jàngu rasulullah bu la nee mën naa defar ndax ki defar xam ni ñuy defar ñu defarloo ko xamu ko lan moo ci preuve bu gàtt université de yi louis celle de Bambey Thiès Ziguinchor Dakar duñ jàngale Fatiha duñ jàngale alxuraan dëkk boo xam ne du ma wax sax ni ko ñëpp waxee ñoom euh, Babacar Mboup 95 pour cent non jël rek 84 pour cent li nga xam ne moom la ñu gëm mu doy leen nga ne ko duñ ko jàngal seen doom te àddina ji bëgg kon problème bi ngeen wax yëpp résumé bi mooy fokk ñun ñu ay jullit lañu ñu jël suñu considération suñuy foog dogme parce que euh, démocratie mooy respecter la sensibilité populaire ñu ëpp ci ñi ëpp ci nit ñi li ñu gëm bëgg ko nga war a maal lool kon nag laïcité bi ngeen di wax ak ngeen ko exposé ñi ngi ñaan yàlla di ñaanal sëñ Abdou di ñaan ñi fi teew ñëpp et ñëw daaru ñëpp yàlla dindi jàngoro yi dindi réer gi dimbali ñu bu ñuy dellu daaru parce que euh, wax na dans son exposé benn jaamu yàlla bëgg a jaamu yàlla dëkk Bawol ñu ko doo jaamu yàlla parce que dafa bëgg ñi juddoo ci réew mi jaamu yàlla bañ ko boole ak dara ki ñëw jël réew mi ne ko doo ko fi defee bi muy dem nag jàngal na ko préparé ko ba mu am capacité mu bàyyi ko li mu doon li mu mébét ak li mu def dem pendant sept ans cette odyssée maritime al ghayba al bahriya dafa ni sababu ghaybati an allah arada an arada minhu jaahan wa akuna shaafi'an li qawmi wa an yakuna fi daw me lu gàtt loolu mooy problème bi Sénégal yi am yéen ñëpp exposé ngeen ko nañu feexe ba dimbali ñu ba ñu parce que laïcité bi ngay wax sax dañ ko importé muy situation bu xew ci benn réew clergé bi ak royauté ñu ànd donc ñu dem copie ko indi ko li fi néew yëpp xam ngeen ko koo xam ne xama rasulullahi daal xamuloo alxuraan ni dangay def lu baax li ngay wax yow mun a nekk ñi la ko wóolu mënoon ko nekk te nag wax nga ko shahada nañu moytu ni yëfi yàggatul te bu àggee ci yàlla dañuy rendre compte di ñaan sëñ Abdou yàlla yàggal ko ñi fi teew yëpp ni ma ko ñaan yàlla dafa ñëpp wér jégal ñëpp baakaar yi imaam nag euh, produit la mosquée ak Nour ak Gédo ni ma koy théorise ak jet ak nuur yow mi ko jiitee ak ñi ànd ak yow yàlla yokku leen fii daal li fi jëp buñ ko jotalee ñi bëgg defar réew mi buñ ci tënku réew mi jaf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw kay <coughs> salaam wa rahmatullahi wa barakaatu professeur Lamine saar jërëjëf kon mbokk yi agsi nañ fi ñuy war a jeexalee jotaay bi incha allah xam naa suñu mbokk mi rek euh, ablaay Cissé moom la ñuy jox ñaari minute euh, yoo xamante ne ñaan na ko ci jotaay bi. bu daaneelee ñu joxe kàddu yi sëñ Abdou ñaan daal di yëkkati jotaay bi ndax mi ngi guddi incha allah bisimilah eh, Cissé. salaamaaleykum waaw jataay bi nag eh, suñ teewee fii mënuñu ñàkk a wax ci diggante borom dëkk bi ak magam ju baax ji. ak ndaw ak lislaam walla ndaw ak liggéey ndax umpale ne moom la wóolu ci ginnaawam ba dénk nga jaboot gi te bi mu demee ba ñëw daf ko xool ne ko ceerno li may wax mooy bu fekkoon ne yow yaa dem ma xaar la fi ndax danaa la defal lii loolu nag ci wax ko kook yaa ko yar day wane ne rekk def na li nga doon xaar ci moom naka mu bu fekkoon ne kenn ku nekk bu ñu la dénkee nga fexe doon am maam Thierno naka mu kenn ku nekk boo wuutoo fas yéene doon am maam Thierno ndaxte lu ne dund na ko ñiy taal ay këram bu guddee ñu lakk ko ñoom sëñ ma ñoo ñu dem wutim ngeer def ta làkku dóor dóor ñu taalati dem ba njaboot gi amuñ luñ dundee nga bëgg a dem lépp pepp sàq mu jéeg borom ne la leblewu ma mayewu ma saraxewu ma damay jaay mu metti ci yow lool nga ne lépp lu liggéey di maye day bu dee pepp liggéey koy maye bootuma ko ñàkk dem na ba nga xam ne ab xiif am na fi tubaab bi ñëw ne ko kaso yi amatuñ luñ lekk di ko leb pour mu jaay leen ko faxa dërëm mooy fanweeri kilo dërëm mu jox leen ñu dem a dem ba dund bi amut ñu ne ko séddaleel sa dugub ji ba jamono neex jamono neex ñu ñëw di ko fay mu ne leen lebalu mu leen woon yàlla laa lebal ñu dem ba nominé ko chevalier de l'ordre du mérite meilleur cultivateur ci plus de africains yoo xam ne tànnoon nañ leen ñaari sénégalais ñoo ci nekk muy moom ak doomu magam ji nga xam ji nga xam ne moo ko yar bam ne nër jàngal ko bam ne ar loolu nag confiance la muy ndénkaan képp koo xam ne jox nañ la confiance mate ko soo ko matewut soo demee ci pencum yàlla danañ wañ sa loxo ba sa ginnaaw ginnaaw mooy wa amma man utiya kitaabahu waraa sahrihi ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf Saa kon ñu sant bu baax mboolem ñi nga xam ne ñëpp teew nañ jégalu bu baax kilifa yi nga xam ne teew nañ te waroon leen a jox kàddu te joxuñu leen kàddu jeexal kàddu yi ci kàddu yi sëriñ Abdou rek daan nañ def bu ñu tollee fii sëriñ Dan wala sëñ Ousmane ñëw joxe kàddu sëñ abdu waaye sëñ bi joxeel na ko boppam ci tàmbali waxtaan wi ñu ñaan borom bi subhanahu wa mu sàmm ko bu baax te dëgëral ko ba tawféex jure ji nga xam ne mi ngi koy defal jullit ñi di koy yaatal ci liggéeyu lislaam di koy yaatal ci liggéeyu maam na suñ borom gën ko cee jàppale. imaam daam yaag mboolem ñi nga xam ne yéen a fi teew. te bàyyi koo Dakar ak ñi bàyyi ci yeneen dëkk yi sëriñ Abdou mi ngi leen di sant bu baax mi ngi bég bu baax ci teewaay bi ak jàpp gi defe naa li mu waxal boppam fii kenn mënu koo waxal lu gën tee ñoŋ loolu. Euh, bu ma joxoon sëñ Basirou saar kaddu gi mu jot li kaddu sëñ Abdou noonu lay mel waaye kenn ku nekk mën na koo wuutu fépp ndax moom daa jàpp ne kenn la ci biir. bu ñëwee dakaar li mu njëkk a wax mooy ana imaam Ahmad Daam kañ kañ ngeen di ñëw fan ngeen nekk ci loo leen nekk loolu mooy yitteem. day mujj yàgg kenn ku ne da nga yaakaar ne yow dong yaa am ci moom ab cër loolu nag mbaax moo toll noonu yaatoom mootool toll na jikkoom mootool neenu waaye du ma mën a sori ci loolu ndax xam ngeen ne sëñ abdu loolu la doonu daan ngeen ñëw fii ci kër gi dal fële ca këram gëlee mu ànd ak yéen andi leen fii ci kër gi ñu fekk Baye Cheikh ci biir néegu ñax bi nuyu ko loolu am na lu dul benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon kon kóllëre googu yàgg na lool góor googu bi muy dund nekk fi bâtiment bii ñu dal mu am saal ba yaatu bi amu fi woon fi bâtiment bi nekk am mbaara fi nekkoon moo xam ne bu fi daan def cérémonie officielle bi sax danga naan mbooloo mi duñ fi xaj waaye loolu yitteelu ko woon ñaari néegi ñaxam yi mu amoon fële ca ginnaaw te mu nekk fa ba léegi ñaari néegi ñax yooyu la amoon keroog bi bàyyi seex nelawee bañ denc ko ba noppi bi ma ñëwee jox suñu Abdou Loxo ak Oustaz Alioune Sall daf ñoo wax ne barabam bee mu tëdd nga xam ne soxlawut ab gardien ndax lu ñu jël nekku fa néegam bii mu doon fanaan it noonu la mel soxlawut gardien ndax lu ñu jël nekku fi góor gu mel noonu nag te jàpp ci liggéeyu lislaam ba tabax jumaay maam Thierno ji yeesal ko def ci lu toll ne li mu ci def ak li mu réalisé ci ay projets yëpp ndax liggéeyu lislaam bu fi bàyyee ku mel ne Serigne Abdou nga xam ne gisiinam mooy gis ab jullit rek Serigne Abdou moom bu jugi sax da nga naan ndax ndax du moom nit rek lay gis far waaw ndax moom nit rek lay gis far xër lool ba yaakaar naa ñi nekk taalibeem wala ay rakkam léeg-léeg danañ ko wax ne ko suñ bi oyof gi ëpp na waaye loolu fonk doomu aadama la ci jublu moo tax yàlla may na ko bis bu réussir bi tey ñu waxtaane fi waxtaan wu am solo wii tey nga xamante ne bu gënoon a yaatu ba àdduna ñëpp dégg ko ñëpp jëfe ko léegi tey li ñuy jooy ci réew mi euh, lépp faju léegi tey solution am imaam Ismaïla jërëjëf ci exposé bu am solo bi nga def ci thème bu am solo bi nga xam ne moom lañ tànn bu ma la xasee ba wax yóbbaale ñu topp sa ginnaaw ñëpp parce que doo xam ku ci gën a tee euh, yéeme ci euh, angle bi nga xam ne moom la ko jëlee di lu yaatu ma dellu wax rek li imaam jànqe daanee la léegi jotaay yu mel nii lu mat a baril la lu mat a yaatal la lu mat a lu mat a lu mat a jëmmal la loolu nag sëñ Abdou kenn la ci ñi koy def yal na ci bari ay moroom yal nañ ko ci royee bu boobaa dinañ weesu rek màggal gi neex na waaye neexaay bi mooy lekk naa ba suur wala dox naa di wëreelu ma siyaare ji diw ma siyaare ji diw ba sonn xam nga koo bokkal nekk ndakaaru nga ñëw di ko seeti fa mu dal waa ci naaj ba sonn ne dem naa dalu diw dem naa dalu diw boo xalaatee sam xel da xam ne amul sens parce que yéen a bokk jóge ndakaaru démb waaye boo ñëwee bala ngaa am jàmm seeti ko fa mu nekk li gën kay mooy nga jëlee fi bind boo xamante ne nii dana la amal njariñ te lool mooy sens bi taxoon mag ñi daan wootee jotaay yu mel nii yal ko yàlla defal kon nag ñu daaneel foofu suñ kàddu jox imaam Ahmad Dame mu ñaan euh, waaw kay ñu jox imaam Ahmad Dame mu ñaan bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi incha allah santaat suñu abdu bu baax nag imaam ndax itam dama koo fàtte manoon naa woote ne ñëw leen waaye day bàyyi xel sax ci ni ñu ñëwee daaw daf maa wax ne ma kenn ku nekk indi otoom dana metti moo tax damaa bëgg a wut ab biis bu ko defee nga dajaleel ma kilifa yëpp ñu dugg ci ñëw ren bi ma xoolee listu daaw bi ñëpp confirmé ne danañ ñëw ma ne ko ñii xajuñu ci benn biis de daf ma wax ne ma bu ko jaree wutaatal beneen nga xam ne dañoo mujj wut ñaari biis yoo xamante ne dugg yéeg ba agsi rek lañ ci am ngir yàlla ak bëgg jotaay bi jag te bu ko defu doon it ngeen ñëw ndax daan ngeen ñëw te joxu leen ni biis loolu ñu ngi ko ciy sant baa di ko gërëm yàlla na gën a man bisimilah salaamaaleykum wa bokk ñu yëpp jàng Fatiha rek ñun ñëpp nañu ànd jàng faate julli cont bi beesal yéene yi rek yéene ki sabab ñu mën a ñëw fii fekkee xéwal gi yàlla gën koo gën ko fee bàyyi lu yàgg yàgg yàgg ñu ko fii fekk te mu gën koo man loolu lu jaadu la wax dëgg yàlla ku fi ñëw eh, doo rëccu ndax ku fi ñëw danga bëgg ñëwaat loolu nag ki tax nga man koo am da nga koo war a ñaanal yàlla mu àgg fi sëñ Abdou moom ci moom sax bu yàggee nga soof <laughs> parce que da ngay baamu rek donc ne koy nañu ko yàlla sàmmal daal waaw yàlla nañu rus ci moom sàmmal ñu ko waaw sàmmal ñu ko ci biir ak ci biti bu kenn moon ci moom dara képp ku ko yéene lu dul yiw yàlla boo man ci moom dara yàlla na ko yàlla dolli ay maqaama moom ak ay rakkam rakk yi jàppale nañ ko ndax moo tax mu man li mu man lépp bi waa presse bi moom ñoom ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy cric sëñ Mansour moo leen tuddee cric soxna yi la tuddee cric mais ñi ñooy cric ñoom boo boo boo feeg oto bi paanul doo xam seen njëriñ waaye ñiitam itam wax ji tasaaroogul doo xam njëriñ bis ko tracé jërëjën jëf yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na barke seen liggéey ñu bokk jàng faati julli cënt اللهم صل والهادي إلى صراط سبحان ربك di woo jërëjëf mbokk bi ñu jegalu rek am na ku bëggoon a jël kàddu seede sëñ Abdou ni mu nekkee ci diaspora bi waaye dañ koo yéex yëg ba ñaan ñu boole ko ci ñu noté ba déwén incha allah salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.